jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare TV wasaare làmb mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal fu waaye mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey nag ñu toog koo xamante ne day yëngu ci wàllum ñaan muy Baye Assane ñu fas yéene waxtaan ak moom ci lu baree bari rawatina coow li nga xamante ne bari ki démb gis nañ ko ci diggante ak mbër mi di guy gi mu génn def benn sorti am lu ci waxoon ñi nga xamante ne dañoo fas ci mbër moomu am lu leen metti lool. dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi kilifa gi maa ngi lay nuyu baax di la ziar. alhamdulilah ñu nuyu wasaare TV di leen ziara di leen ndokkeel euh, di ñaan yàlla mboolem Sénégal fu mantu nekk ak bitim réew yëpp ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah euh, kilifa gi bëggoon nañu xam. li njëkk mooy dañu gis nga def benn sortie sorti boobu. nga wax ci lu bëree bëri wax ci coow li nga xamante ne jot naa am ci dëkk bale wax ci ni nga ko mën a lijjantee mais ñi njëkk mooy dañu gis nga def sorti wax ci guy gi sa problème ak guy gi lañ bëggoon xam problème bi fan la sosoo ak li xew ci sa diggante guy gi lan la. waaw alhamdulilah comme niñ koy defee rek mooy balaa ñuy wax mooy guy gi dañ koy jéggalu ndax wax dafay mag boroom maanaam yitaa nga wax ba wax loo xamante ni peut-être amaana bi nga koy wax seetloo ko euh, bi loolu amee it bi ñu ooyee dañ ko ne ñoo tooñ ñu ngi jégalu ndax ñu jullit lañ taalibe lañ ay borom xam-xam ñu ñuy déglu suñ waxee benn communication juum tooñ ko moom xamul benn luñ mën a def lu dul moom baalu ko àq ndax ñun réewuñ te loolu du wàññi suñu dara. Hmm. wax naa ko ko démb dama koy waxaat moom ak Nasir yëpp. en tout cas mosuñu séq ak moom mosuñu gis yoroo lu ñu xaalis am na ñuy bind si commentaire yi ne dafa yoreel bi xaalis man maa doon def émission wax loolu mu rëcc ma maa ngi jéggulu comme doomu aadama nu muy jumee maa ngi koy jéggulu di ko baalu àq di ñaan mu baal ma. lan nga mën a tuddee rëcc rëcc maanaam da yaa wax loolu mu rëcc la lan nga mën a tuddee rëcc. waa xam nga benn journaliste dafa ma laaj. Hmm. ci combat bi lañ doon waxtaan. Hmm. léegi. ba wi wax ji dem ne guy gi seq nañ wala sequñ waaye man guy gi mosuma seq ak moom dara. waxuma xamuma ko. mosoo koo gis mosuma ko gis. mosoo leen jëflante wala nga jëflante ku jege. non non mosuñu jëflante ci dara. wax bi pour mu gudd wala mu gàtt man guy gi laay waxal ak mboolem fameem di ko jéggalu mu baal maax ndax man jullit laa doomu daara la doomu soxna la guy gi julli la doomu daara la doomu soxna la taalibe Cheikh Tidiane la. Hmm. ñu ngi koy ndokkeel di ko wax na ko fa mu nekk ci États-Unis boobu am nañ fa ay sopp yu bari di ko ñaan mu jéggal ñi ñun ñoo ko tooñ te ñun amuñ benn rëy nag taxaw ci kanamam nañu ne ñoo ko tooñ loolu lañ am ci ay kàddu yi. waaw sëñ bi dafa am loo xamante ni dafa jeexal dafa jaaxal Sénégalais ñu bari parce que da nga ne guy gi ci biir vidéo bi danga nga ne sirlu boobu mu yor maanaam sirlu bi simpi yow yaa ko ko jox tey boo nee man maa ko ko jox wax suru sirlu bi. wax ko tënk ko ñu bari gis ni li ngay wax nii kat vraiment alquran la waaye alquran boo nee man maa ko jox diw ba ba tudd ci lu baree bare nga jékki-jékki at génn ne guy gi xaw ma ko musuma ko gis kon wax boobu lan moo la ci dugaloon. waaw mooy li ma la wax rek xam nga doomu aadama bu nekk communication dafa xaw a yombut. et puis ak yenn termes yi ci laaj yi mën naa am suma wax ci gàttal ak ci guddal. Hmm. mooy li ma la commencé moom lay terminer. Mm-hmm. man guy gi laay waxat ak ay fameem waa xam nga yow guy gi ngay jéggalu actuellement mm-hmm. Mm-hmm. mais sénégalais yi dañu bëgg a xam parce que gis nañ vidéo bi mu dem parce que li wolof naan mën a mën foo gis euh, euh, du yow a du yow yegg fa maanaam fa fa wax yegg tuuma teggi tuuma yegg fa moo taxoon ñu bëgg nga gën ko leeral sénégalais yi pour que ñu xam bu baax a baax a baax wax ji fu mu jugee ba xam ki nga invité plateau journaliste boobu nga nga doon la dalal moo moo la wax nga wax loolu wala da nga ko wax ngir que da nga bëggoon àdduna bi xam ni guy gi euh, am na lu ngeen séq wala da ko waxoon pour bëgg a yàqal image guy gi fi mu toll ci làmb no xam nga ñun yàqal doomu aadama taxul ñu jo mm-hmm. te duñ ci dox ndax ñu dañu defar doomu aadama mm-hmm. dañuy defar doomu aadama ci mbiri saahir dañu defar doomu aadama ci mbiri baatin mm-hmm. Euh, am na ñu bëri sax ñu ma oo na ma ndax dañ la jox xaalis. Mhm. pour nga wax ci guy gi yàqu ko man leen man du mbindeef mu may jox xaalis di ma nger joguma it pour yàq wax ji dama ko doon wax mu ëpp ma doole. ëpp ma doole bi mooy wax naa lu ma wartu wax tekk ci kaw guy gi ak ak i ak i mbokk mer duma am mukk ñàkk maanaam rëy boo xamante ni damay bañ sukk ci kanamam moom ak ak mbokkam di leen jéggalu ndax man nit laa communication bi nag. fi nga bëgg ma dugg mooy lan mooy man maa doon wax war lu wax lu ma wartu wax ci guy gi mu oo ma téléphone ñu waxtaan ma ne ko maa ngi jéggalu ma waral ñu oo leen ngeen ñëw sequma ak moom dara mosuma ko gis yorelul ma benn dërëm sama wax moo dugg foo xamante ni waruma ko wax ma tudd turam maa ngi koy jéggalu di ko baalu àqu di baalu mbooleem njabootam ak mbooleem dëkkuwaayam ak mbooleem soppeem ak mbooleem ñi nga xamante ni dañ koy suivre ci làmp mm. waaw loolu la am lu may wax waaw sëñ bi bu ñu gisee loolu nga wax ba pare ñu gis ci biir wax ji bi ngay wax ñu gis nga kaamilu alquran kaamil boobu nga yoroon di wax loolu ak sa digganteeg kaamil bi ce que ñi nga xamante ne ay ñooñu alquran lañ ñooñu daara lañ bu ñu gisee loolu nga wax ko ba pare génnaat di jéggalu du am lu leen metti waaw non xam nga kaamil bi bi ma ko téyee dafa am ci lu ñu doon waxtaan ci mbiru lasaraar mooy wàllu ñaan man bi may wax ci guy gi teewu ma kaamil bi ma waxee ba pare ci laa téye kaamil bi ñu continuer ci wax ji waaye kaamil alxuraan man moom laay jàng moom ngeen fekk fii ma wax ci guy gi ak ma wax ci ñàkk guy gi man kaamil alxuraan dama koy téye guy gi dafay téye kaamil alxuraan mu wax ci man ak mu ñàkk wax ci man. jullit nag li gën a bon ci moom mooy nga def dara ne defuma ko man maa tooñ guy gi Baye Assane Touré maa ngi koy jéggalu taalibe la guy gi taalibe la communication bi ñaari baat la ñetti baat la mooy man guy gi laay waxat ak i mbokkam Nasir jot na ma ak ñi estafam bi yëpp. maanaam leen li ma wax waruma ko wax damaa jum dama tooñ maa ngi jégalu. Hmm. loolu mooy kàddu yi. bi nga waxee loolu ñan ci ñi jege guy gi ñoo la njëkk a woo ak kan moo la ci woo ak bi mu woowee lan lan ngeen jot a waxante. waa xam nga man dama nekk nit koo xamante ni damay tey ci lu bëri. keroog hmm. suur boo dafa fekk ma nekk ci benn gàmmu. Hmm. depuis onze heures ci bëccëg ba quatre di du matin. sama téléphone yi bi ngay ñëw yow jotoo ma dafa am ko jot. ndax dafa am ci lu may nekk damay bind dama nekk ci gàmmu googu suur boobu man maa nekkoon. ñii dalal gan yëpp ma leen di daanal mu mu nekk ci Saalum bu sëri ma jógee koo Dakar dem fa démb ci ay trois heures du la activé Dakar. Mhm. bi ma yegsee man maa oo Nasir na ko all journaliste yi ñu ñëw ma jéggulu guy gi baalu ko àq. Mhm. Nasir oo na ma avocat guy bi oo na ma waaye avocat guy gi jarul wax ak man sama bëkk néeg bi la jot waaye Nasir moom oo na ma démb ci ngoon wax ak man guy gi oo na moom li ma leen wax mooy li ma la wax nii. maa ngi jéggulu hmm. tooñ naa leen tooñ naa seen famille man jullit laa taalibe daara laa nit laa laqatuwuma kenn mësul ma indil benn problème ci li may liggéey waaye dama doon wax ba wax lu ma wartu wax guy gi laa ko wax ak i mbokkam di wax ne Sénégal yi yëpp maa ngi leen di jéggulu ak supporter guy gi di jéggulu guy gi fi mu nekk noonu am naa fa ay soppe maa ko tooñ aw ma rëy suñ demoon ba ci kanam yoon damay taxaw ne ko maa ko tooñ mu jéggal ma su ma mënee jéggal jéggal ma tam ba léegi waaye man maa tooñ journaliste yi yéen ñi nga xamante ni yéen ñëwoon sax yéen seen yoon nekkul ci man maa wax guy gi maa ngi koy jéggulu jullit la soo ko baaloo mu baal la defet ci la jógee ko yàlla na yàlla may ko ndam te incha allah danañ am moom connaissance pour jokkoo ak moom pour dimbalante moom hmm. ci euh, doom aadama ak doom aadama ci jullit ak ci jullit hmm. waaye man maa wax lu ma wartu wax ci moom hmm. sequma moom ñaan sequma moom xaalis sequma ak moom dara tooñ naa ko mu mer dëgg waaye doom aadama su meree it moromam doomu aadama bi ko tooñ moo ko war a jégalu. Mm-hmm. maa ngi koy am na solo mais léegi daan bi nga xamante ni dootul daanati mbër ba nga ko waxoon fii ñëwul jox la lim la ameel dootul daan mbër combat mi di ñëw mën nañ séntu guy gi daan. waa xam nga xam guy gi guy gi taalibe daara la. Mm. ndax jàngal na ma ci man lasaraar. loo xamante ni démb ci ngoon ci lañ ko wax ci quatre ay cinq yoon yaa moom moom maag moom mu wax ci alxuraan ku xam alxuraan la taalibe Cheikh Tidiane la xool bu rafet laa amee bëri na xatar nag man man ak moom ñoo yem man ko bëri xatar laa waaye su ma waxee su ma xoolaatee li ma wax su nekkee dundoon man rëyu ma ndax duuma naafiquun duuma kuy far fii suba ma farfalee gannaaw suba man ko direct laa dama doon wax nag wax nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax man nay wax juum man maa tooñ guy gi bi ma koy tooñ amul benn doomu aadama bu ñëw na ma tooñ ko amul benn doomu aadama bu yekk ci xaalis na ma nangam li ma ko wax noonu wax la joo xamante ni média moo ko jàllale man maa ko wax réew ma ne maa ko wax maa ngi koy jéggalu ci estafam di ko jéggalu xam nga sëñ bi d'accord nañ ci jéggal gi hmm. mais bëggoon xam maanaam lan maanaam wax ji lan moo ko sabab maanaam lan moo tax wax ji jugee noonu rek ak làmb ji nu mu bëree ay mbër ni fi ñëpp nekkee wax ji jékki-jékki rek dal ci guy gi donc ko bëgg donc ko yàgg a suivre wala dangay ñaanal ku koy ñaanal wala lan moo tax. waa xam nga ñun moom mooy li ñu lay wax rek ñun ñu wax kàddu goo xamante ne dafay dem tey suba mu ñëw ñi naan ñoo ko fi waxoon wala nangam man ci laa première fois doomu aadama mu ngi ma dogo oo nag ma li ma wax na xaddina te yaakaar naa bi ma commencé liggéey ci internet ba léegi 2008 ba léegi maa ngi fi su ngeen tàppee vidéo yi dana liggéey naa vidéo yu bëri amul benn doomu aadama moo xam damay jëflante yow mbër nga moo xam damay jëflante yow commerçant nga bu a ñëw ne def nga ma lu ma ci guy gi la ma dalee sequma ak moom dara sequma moom ñaan pour ñu terminer sequma ak moom ñaan man maa wax ci turam te ma wax ci turam tuumaal ko waaye maa ngi koy jéggalu hmm. di ko jéggalu nitu daara laa man rëyu yàlla mi nga xamante ni moom a tiim sax su ma ko defee dara damay sukk ci kanamam jéggalu ko ak mbindeef yi nga xam ne mbindeef yàlla la Nazir maa ngi koy jéggalu di jéggalu so depuis barki démb bi ñu déggee wax ji ba léegi am na lu leen naqari waaye biñ ma ooyee la ma leen waxoon moom laa waxat ci micro bi nañ démb mer na waaye bi mu meree dama ko ne maa la tooñ maa ngi lay jégalu. Hmm. man duuma kuréy. loolu xam nga lu mën a yàq ci carrière. Euh, non du ko yàqal dara. Hmm. waaw xam nga lu tax du ko yàqal dara. Hmm. ndax euh, doomu aadama su bëggee dem ci kanam. man sama wax ji waxuma ko woon pour mu yàqal guy gi. bon du ko yàqal su nekkoon dama ko wax pour mu yàqal ko. dina ko mën a yàqal waaye man waxuma pour mu yàqal ko. amaana nag doomu aadama yi ñoom ñu koy gisee neneen maanaam tey communication peut-être mën nga toog nga wax benn affaire. comme journaliste yi mën nañu dugal ci loo xamante ni yow waroo ci dugg waaye en tout cas lu mënta xew du journaliste du kenn man la man maa wax. guy gi laa wax pëlëwéer ba troisième mooy maa koy jéggalu mu jéggal ma di ko ñaan jullit la di ko wax na ko ñu ngi koy ñaanal yàlla ndam. di ko ñaanal yàlla lépp loo xamante ni mu ngi koy sàkku ci àdduna mu am ko. Hmm. dina wax na doomu aadama bu nekk nag ci li ngay def ci ngay am njumte. Hmm. ñu moom làmb sax mën na si def njumte ñu tam li ñuy def mën na ci waaye ñun ñoo ko tooy. ñu ngi jégalu joxuñu benn dërëm kenn amul nangam roccuñ dara ci moom. yàlla mu ngi ànd ak moom te ñu ngi ñaan yàlla yàlla ànd ak moom ci kanam ak ci ginnaaw di ko jégalu nag bu baax Nazir ak képp koo xamante ne ma joguñ pour yàqu ko ndax borom njaboot la man borom njaboot laa ku ma ko defoon du ma neex waaye su boobaa it la ma nit mën a def moom itam jéggalu laa ko mën a def amuma beneen baat nag bu gën a kawe jéggalu guy gi hmm. joxul ma benn dërëm mosut ñëw fii xaw ko waaye sur wax danay dugal nit foo xamante ni doo fa bëgg a dugg lu tax may jéggul nag mooy wax bi nu lu maanaam nekkul maanaam li ma ko tooñ moo tax may jéggul kon su ma déggee wax ji mooy journaliste bi la doon introsé moo la sëraxal waaw xam nga xam nga xam nga nit sax dana nekk ci terrain football ba ci yàgg nga dam hmm. te bi ngay dem maanaam yow jële woon intention pour dam maanaam sama wax man moo ma dugal li ma mën a def nag mooy man Sénégal yëpp ñu ngi may déglu xam nañ ma hmm. moom États-Unis gi nekk noonu Italie gi nekk France gi nekk ñëpp fu ñu nekk. Hmm. sama benn waaye maa koy jaar muy El Hadj Ndiaye. keroog hmm. bi vidéo bi duggee daf ma après moom sax laajaar na ma ci moom journaliste bi na ma mbër man ko man du ma wax ci bi ci mujjanteel gi. Hmm. na ko man guerre bii moo ma tax a wax. léegi nag man bi ma waxee bañ tegal mu vidéo bi ci laa doo xam li ma wax waaye guy gi maa ngi koy jégalu. première fois trois troisième fois quatrième fois jégalu rek la ndax amul lu ma mën a wax ba mu gën a leer jégalu. ñu ngi koy jéggalu di leen mastaw yéen coono di jéggalu Nazir di jéggalu avocat boobu owoon na ma waaye man ma jot waaye boobu fi ma nekkoon la man ma jël téléphone maa ngi woon ci frontière Gambie bi fanaan ci programme mu diine ba ma xëy di nelaw loolu moo tax démb ci ngoon laa doog a jotee ca ñoom loolu moo ma indi waaye man damay delluwaat ndax dama am soxla Gambie war fa dugg su ma ko réglé trois jours doog a ñëw. Hmm. léegi nag wax ji mu gudd mu gàtt mooy ñoo wax ci turam ne jox nañ ko nangam suñ koy jox dara. mosoo ko jox surlu boobu mosoo ko gis mosuma su ma mosuma ko dégg li nga ne dootul daanati mbër yooyu yëpp yooyu maa ngi koy jéggalu wax la mm. ju rek ci mm-hmm. man jullit laa rëyu ma te loolu du ko yàqal dara mm-hmm. man tam su ma ko jéggaloo rek ndax nit bàkkaar bu mu mën a def rek su jéggaloo yàlla mën na ko jégal ba moom tam man moom laa tooñ tooñu ma yàlla moom laa tooñ mm-hmm. léegi nag moom maa ngi koy jéggalu di sukk ci kanam moom mu jégal ma ndax ñi ba léegi nii sën lañ ba léegi nii nit lañ dañu juum dañu jaawale dañu xam dañu fàtte dañuy xiif dañuy mar moom lañ toon moom guy mu ngi États-Unis ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam lépp loo xamante ni dugg na ci waaye ñun ñoo ko tooñ ñu ngi koy jégalu. jërëjëf am na solo léegi lu mel nii lan nga ci mën a jàngat pour bu ëllëgee situation yu mel nii. waa xam nga lu lu nekk rek dorsu la. Mhm. ndax doomu buy dem. nit dana la fakastal pour dugal la sax ci yenn yi. Mhm. ndax saytaane ku góor ci amut. amaana man saytaane moo ma jàppoon ma wax loolu waaye bi ma dellusiwaatee guy gu oo ma amul kàddu gu ñaaw gu ma ko wax. si palaweer ba terminé dama ko ne maa ngi jéggul Nasir palaweer ba terminé dama ko ne maa ngi jéggul ba ci seen avocat bi oo na ma waaye jotut wax ak man ndax boo maa ngi woon ci programme mu diine. Mhm. ci la douze bi. Mhm. ba quatre heures di matin laay doo ko pare su ma paree nag damay nelaw ñu xëy di ma oo jotuñ ma quatre heures si ngoon démb lañ ma jot maa ngi farañ woon frontière bi am lu ma doon liggéey. Mhm. te su ma paree fii émission bi incha allah damay delluwaat. loolu moo tax ma bàyyi ko foofu ñëw fii pour oo leen ngeen ñëw ñu def témoignage bi. naka Baye Assane Touré man maa tooñ guy gi maa koy jégalu ci njabootam di ko jégalu ci fameem di wax na ñuy commentaire nañ bàyyi li ñuy def man yoreelu ma ko dara moom yoreelul ma dara warul may fay dara ñu ngi koy ñaanal yàlla te danañ am connaissance man. ak ah, moom ah ñuy commentaire kat sa wax lañ gis. waaw xam nga yooyu yëpp yooyu yëpp gis nga kulla ma aw xaadoo naaru li xar fin at hmm. bu buñ gis mu tàkk. Hmm. ñun buñ ci jéem a xam bu matt muy tàkk nañ jéem ut ndox mu koy fay hmm. man maa juum maa ngi jégalu boo kenn yëkkateeti loolu koy doy na man maa waxoon. Hmm. gis nañ fi sax nit koo xamante ni kilifa la gu mag gu ma gën a mag man wax njum toog ne jégalu man guy gi laa tooñ tooñu ma yàlla tooñu ma beneen sénégalais. kanaa ay mbokkam wax nañ ma ko métti na leen ba léegi nas dama ko jégalu moom guy gi dama ko jégalu man nit laa rëyu ma te manuma yàqal dara wax ji ma wax. moom moom moom sax man ko yàqal dara ndax man waxewu ma ko woon sax pour jàppee ko pour ne nangam Ah, hmm. man nit laata bi nga ñëwee jaxasoog man gis nga ma bi ñu hmm. commencé nee naa la lii ak lii ak lii laa bëgg a wax pour jéggulu guy gi ñaanal ko yàlla te dara du ko jot nag te incha allah su lii paasee dana ma gën a xam fu may teg sama tànk di ko ñaanal yàlla te danañ gën a jokkoo man ak moom li may def daal mooy guy gi joxul ma xaalis amul benn doom aadama bu ma jox xaalis na ma yàqal guy gi man aw ma jot boobu man maa ko bañ ba Sénégal yi li mu leen di ñaanal bëriwut soo tàppee da nga dégg ñu ne ambassadeur Modou Modou yi fa mu nekk noonu démb wax naa ko am na fa ay kilifa yu may siifoo suñ déggee sama interview yi sax maa ngi leen di jéggulu surtout maa El Hadj Ndiaye Allemagne Omar Cissé États-Unis ak Mouhamed ñoo nga xamante ni samay communication ñoo ko yor dañ ma dal wax ma ba ma xam ne maa juum déglu nañ ko métti na leen comme moom nu ko euh, ay soppeem wax ji nu ko méttee biñ déggee wax ji it ñin laaj ma mën a leen seq ma dara ñu ne ma sëriñ juum na juum nag ku juum. juum rek la mën a def léegi nag moom moo yor baat bi moo war a jéggale maa ngi koy ñaan mu jéggal jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax xam naa dinañ leen ko gën a toppal dem ci ñi nga xamante ne ay proche guy gi lañ ñi nga xamante ne ay mbokkam lañ ñu ñoom it ñu joxe ci seen xalaat ñu ngi ñaan yàlla na ci yàlla def ndox bu sedd ndaxte wolof daf ne tooñ lu mu rëy rëy baal ma moo ko gën a rëy kon ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax. incha allah waaw jërëjëf.